dimanche rek ndax dimanche jot na ba pare wax ji jàllul muy bari seen champion ñëw na gis ngeen ko saafoonte na ak yéen li ñu koy njëkk a rek mooy Ama bi nga dugg see depuis 15 heures bi fees dell nga ñëw gis Pikine gis autorité Pikine gis say frère gis say sœur ñëpp def benn tànk topp sa ginnaaw tey bi nga dugg ci stade bi lan yëg sa xol am lan ngay wax li nga xam yëpp dañu bëgg Ama te yaakaar si moom. a sant yàlla a a di mari mi ngi ma di sant sama woon sëñ Abdou Karim Mbacke maa ngi ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm waaw yàlla bàyyi moom ñu mën a taxaw sëñ Abdou Karim Mbacke di gërëm sëñ Afia di sant sëñ Tako di sant sëñ Atem Mbacke baax a baax a baax maa ngi sant sëñ Atem Ahmad Sassou Cheikhouna Mbacké bu baax maa koy salaam. waaw sa Cheikh maa koy sant di ko gërëm. di gërëm nag di gërëm nag d'abord sëriñ Touba yëpp maam Mawla Maale yi maa ngi sant waa Tivaouane bu baax a baax di leen santaat bu baax di sant waa Kaolack di leen sant bu baax a baax di sant waa Laye yi waa Yoff am na waa Kambourou maa ngi ziar bu baax a baax di ziar Sénégal bi yëpp rawatina waa Pikine am na. di gërëm sama dëkk sama dëkk turandoo waa waa Jaxal maa ngi sant bu baax waa waa waa Jaxal sant waa Guinée waa Sèche Sèche waa Yoruba Kouta waa Ponka Fulaadu yëpp Fulaadu yëpp kuy Fulaadu baax a baax baax baax waa Pikine aw ma seen fay parce que gis naa boobu ni moom say weer ba léegi képp ni nekk na Pikine rek yaa ngi tax sama tableau am si man confiance doyloo ma yaakaar ñaan yàlla bu yaakaar tas maa leen sant bu baax a baax gërëm nag suñu président Modou Gueye maa koy sant bu baax baax gis naa mu taxawee bu baax baax xam nga sant yàlla bu baax a baax a baax sant nag ah, Pape Gueye xam ne maa ngi koy sant bu baax di gërëm Abdou Niagnam maa ngi koy sant bu baax a baax lépp koo xam ne jàppal na maa ngi lay sant bu baax a baax comprendre di ñaan sant bu baax di bu baax a baax a baax. mobilisation bi ama mel na ni Pikine sas nañ la Pikine yaakaar nañ la Pikine koo wax danay wax ne ndam la ñuy jëli roi bi la ñuy jëli lan ngay dalale xelu waa Pikine yi nga xam ne dañu am yaakaar ci sëriñ bi nga xam ne tey nekkatul sëriñ. waaw damay may tuuti ma gërëm ku gërëm bu baax a baax xam na di gërëm Lamine Naar maa a Ba bu baax a sant di ko gërëm ah, di gërëm nag Abdoulaye Abdoulaye Sylla sant bu baax a baax di ko gërëm Abdoulaye Sylla ci daanu ma taxawoo bu baax a baax sant bu baax a di gërëm nag ñëpp di gërëm Modou Gueye di euh, dinaa am taxaw bu baax a maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm. képp koo jàppale Issa maire de la ville ñëpp képp ku nekk biir rek. Ah, képp ku ma ma tànn rek. Issa taxaw na maa ngi ñaan yàlla suñu borom defal jàmm yu bëri. jërëjëf gërëm nag du ma gërëm sama mag sama xarit Ibrahima Diop maa ngi koy sant bu baax a baax dégg nag gis naa lu ko taxaw bu baax Ibrahima Diop maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom defal jàmm yàlla ko yàlla defal jàmm. alors léegi Ama. ñu bari dañ doon werante ndax Ama mi ngi ci forme wala nekkul ci forme bi ma la gisee tey dafa mel ni gars yar nañ la lu métti parce da ngaa jeex lan ngay dalal xel waa bi ci état xel mu dal ak xel bu dal ak li nga xam ne mooy yaakaar bi man sëñ sax nañ ma toog xaar li ma war a def yëpp def nañ ko man maa si des man Amadou Bale borom Falaye Bale man maa si des. man sax dara bu ma wax dara man maa si des. dama ne bis boobu yomb na góor am na góor lu mu dem mu yomb si moom bis boobu yomb na góor yàlla góor yàlla la te dama koy jënd mu nekk yàlla. alors Ama Ama dañu gis waaw écurie bi yëpp dañoo def ndel foofu waaw ndel bi lu mu doon ak lu mu teg. nekkul man laaj la ko mais Ama pourquoi nal bi. waaw xam nga souvent day seet rek. li ma jël ñëpp benn un an lañ def benn kii xam naa dégradé bu ñu doon dégradé mooy ceeb xam nga lu ma la ceeb lay xaw. waaw moo tax mu war mu nekk mu gaaw a xos ba mu doon xos bu def seen mais Ama mais Ama Ama ñu gis nii ñu gis nii Sénégal yi ñu ëpp ci Sénégal yi dañ ne combat bi bu yàggee arrangé wul Ama Baldé ndax physiquement. Modou Lo moo gën a taxaw Ama combat bu gaaw moo ko arrangé ci combat bi lan ngay ci loolu ndax nee nañ Ama Baldé bëri combat yàgg combat à la nga li nga xam ne moom lañuy wax mooy bés bu mag la ñaari champion yu mag war ko daje ñaari gox yu mag war fa daje ñu bëri am njàqare ci wàllu euh, violence ak lu ni mel ban appel ngay lancé ci côté boobu pour que ñëpp dal muy waa Pikine muy waa Parcelles ak ku mu mënti doon yàgg Modou Lo yéen a digaale bu ñu tëjee barrière yi yéen ñaar. dama la ambiance nag moo bëri. waaw man mosu ko bu toog sama ginnaaw xam naa ne man maa ngi tàmm. toujours wax xeer bu soog du jub. moom ma mën a yàqu ñoom moom laa doon jëm ñoom man man man man a a bi ma doyoon ni a góor le mot de la fin ñu bàyyi la nga delluwaat ci entraînement yi parce que yaakaar naa ni fii ak boobu nit dootu la gisaat à part ngay nekk waaw damay sant yàlla di sant sama àndandoo yi di sant sama àndandoo yi Lamine balaa mu doon tëj bëggoon nañ xam bu baax ndax dina fital jaar wuti Modou Lo loolu ñëpp koy laaj képp ndax ndox dina bàyyi yoon xam nga dina gërëm bu ma benn yoon xam nga su mel ni Maalo Seras su mel ni Tabax Abda Basbal xam nga buuba gëm solo ak loolu Ibrahima maa ngi gërëm del del maa ngi gërëm bu baax di gërëm di gërëm euh, Alioune Fall maa ngi gërëm a baax a baax di gërëm Pape Samba di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom di gërëm waa Assane a baax waa Assane waa Assane bu baax xam nga di gërëm waa baax continuité bi